ab déception bu mag Sénégal daal di koy yeewoo ginnaaw bi nga xam ne bi ab son génn na ñu ne kii di Omar Pène da ci doon woy ak kii di Ousmane Sonko Omar Pène nag daal di génn weddi mbir moom ba ba mu set wecci nee na loola day naam ab som la mais nee na nag dañ koo jël ñu sansé ko daal di koy tuddee kii di Ousmane Sonko et dem dugal ci yeneen ba mu mel ni man maay woy kii di Ousmane Sonko mais nee na moom deful mbir moom mel noonu lee kii di Omar Pène nag naxarlu na mbir mooma ndax moom dafa jékki-jékki rek gis ci lii di internet bi son boobu mooy daw te naa moo ne son boobu moom moo ko tëggoon mais danoo sensé li nga xam ne bii moom mooy eh, texte bi sensé li nga xam ne bii mooy voix boobu Omar Pène moom mi ngi naxarlu mbir mooma lee ndax nee na lii nii day nuru ay propagande politique. te man defuma mbir mu mel noonu lee ka ko def nag ba tey kenn xamagul ana kan moo sensé lii di son euh, Omar Pène bi daal di koy déppee kii di Ousmane Sonko mel ni Omar Pène da ci doon woy kii di Ousmane Sonko.